les force de l'ordre makisal Sall jarul yenn yi yéen ñëpp yi ngeen koo ci gis mu sol tenue taxaw fii ngoon da ngay dem gis ko li def stop nga dugal ko doo xamee sax ni waaj la nga nga yóbbaale ko mu ne la man de policier la wala gendarme la réew mi ñoo ko bokk d'accord da ngeen def seen liggéey d'accord vous appliquez des ordres mais que personne ne vous transforme en assassin vous n'êtes pas des assassins maintien de l'ordre lañ leen sant waaye du tiire ci ay nit di leen rey bu leen ko nangu dara jaru ko ci àdduna surtout ñi leen koy defloo ñoom ñëpp ay milliardaires lañu yéen seen salaire quatre-vingt-dix mille francs ñu dagg leen ci vingt mille francs ne c'est pour la popote nga ñibbeeg soixante-dix mille francs ñu teg la ci àll bi naan la dóoral sa frère dóoral sa sœur dóoral sa baay bu leen ko nangu Macky Sall jaru ko ñi mu ànd kon ñu ngi leen di gërëm di leen sant.